nga juddoo kama kata manga yaroo chama kata manga jada yama dina a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man ursila rahmah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo amaan dellu siwaat ci seen émission Tivaouane 7TV ñu àndaat ak yéen ci sunu instant de moment de ndogu mooy sunu émission bi ñuy ànd ak yéen bis ne mbokk yi wax naa la démb déparé nañu ci bunt bu bees bunt bu bees mooy chapitre douze boo ko ubbee sa téere di nga yem ci chapitre douze dem leen jël bun bayit bu njëkk ci bunt bi ñuy waxaat beneen bayit ba alaaji maa démb daf la wax cinquante deux ans la yonent bi amoon ci le vingt sept ci weeru rajab moom la laa alaaji maa di nettali histoire waxagula nag lan moo xew dafa ñëw rek jox la ay date kon yow retenir la date yi bu baax nga téye maam Seex Sidaaji Maalik gars yi waxaat nañu leneen de mu ne ah waaw waaw Maodo ne gars yi waxaat nañu leneen de waxii la wax nañu fii rajabin ci rajab la fii zalika naka jëf fii zalika naka amalu jëf jooju ana nekk na salaamun alal muxtaar fi zil qidami loolay la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa histoire bii mu lay nettali dafa am ñeneen ñu wax leneen alaaji Maalik ci maandoom ak ci baaxam ak ci yaatal la mbiram moo waral mu indi la la keneen wax ndax nag gaa yi wax nit ki xam-xamam wàññiwul sa xam-xam de déedéet wax nit ki xam wàññiwul sa xam-xam mbaa xam nga ni yoroon sax benn mille francs kese kese kese nga jël mille francs bi mille francs wàññeekul da yokk yeneen 9000 mooy yokk ci 1000 francs bi te yóbboo day ñëw yàlla moo ko wax man jaa abil asanaati isa fa lahoo ashara am saaliha yàllaa ko falahum ashra amsaaliha képp ku ma jox benn man yàlla ashra amsaaliha dinaa la ko weccel fukk kon boo jëlee 1000 francs nga joxe ko lamb sa poche jël joxe benn 1000 francs bi nga yor nga ne wàññeeku na déedéet dafa yokk xam nga kañ la wàññeeku bi nga ko bañee joxe alaaji maay noonu la def dafa wax xam-xamu keneen wax xam-xamam te bàyyi la yow miy am xel ndax du canaliser xel yi nit ñi ne leen affaire bi lii kese la xam nga bés bu canaliser wu nit ñi tey jii su ma ñëwoon ne la lii kese la télé bii rek moo fi nekk amoo opportunité seetaan beneen télé léegi force ñun ni moom lañuy ñuy seetaan force ñun ni moom la ñuy gis déedéet dama lay bàyyi yow nga xool ku ci nekk nga xool lu la neex ndax télé bii ñu nekk ay yeneen programme a ngi fi tafsirul quran a ngi fi mm, ndogu à domicile a ngi fi ah, ndogoog yow xaw ma na nan la yeneen émission ngi fi ah euh, dem seeti star nu ñu wax staru nabien yi mooy takkat yeneen bi dem seeti leen yooyu yëpp a ngi fi yeneen ak yeneen yeneen a ngi fi ak yeneen programme yu juddoogul su ma taxawee rek ma bëgg la wax ni Momar la ndogu bii moo fi émission bu boobaa maa ngi canaliser esprit yi loolu la ñuy bañ dañuy bañ ku canaliser esprit yi ci benn affaire déedéet ndax yàlla yemalewul yëf yi ci benn yëf da koo yaatal waaw nda koo yaatal moo tax yàlla buy wax toujours ay ñun yàlla lay wax ñun yàlla yàlla lu tax mu nekk moom kese di ñun yàlla day jangal nit ñi ne len yaatal len ok mo na maam sey siraji maam ne bala ma lay wax lan mo xew yakam diga histoire bi dina la xamal ni amna ñeneen ñu wax leneen suma ma rek wax la li ma wax bayyi bu boba yow mi yow mi am xel mëno ci xam dara waye suma la bàyyee wax li ma wax wax la lu keneen wax tek yow mi am xel sa xel dina am liberté ndax liberté d'expression dafa wara am waye teunk nit ñi ci ben affaire rek li la li rek budul li baxu lolou deug du yoon lolou deug du yoon mawro ne waqiila wax nenu fi rajabin ci wer rajab la wa fi zalika naka li balen di wax amaloo muy jëf joju kon da mi ngi wax jaa beug leer nag da kon jëf la kon da ngay jëf la jëf la le 27 bi ci wer rajab bi ci weru gamu gi mu lay netali ni ci 52e ane yonent bi kon da ngay jëf la wa fi zalika naka lolou ma lay wax ni amalu jëf go goo ana nekk na salaamun jàmm alal muxtaar ci ki yalla tan zil qadami ki nga xamni lepp luy jitu ci mom la déparé té lepp luy muju ci moom entreprise de travaux d'équipement et de prestations diverses ETEP à votre service pour tous vos travaux. Dans tous les domaines, nous avons une compétence très large. En génie civil, bâtiments et travaux publics, terrassement, hydraulique, charpente métallique, menuiserie métallique. Et ce n'est pas tout. Nous avons une qualification sur le domaine de la menuiserie aluminium. Dans les ouvrages d'art, nous sommes les meilleurs. La tuyauterie industrielle, l'électrisation industrielle, construction de plans en archi et plans en 3D, étude de béton armé. Nous sommes situés à Dakar. Contact 33 835 26 46 à Kaolak 33 899 93 89 ou bien à Port au 77 544 19 48. ETEP, la qualité de votre service en main. ولا ولي قاد الأمان وكدوم للزرمان وجاني إليك توسلنا asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi ci biir Sénégal ak ñi nekkul Sénégal ndigal jóge de Sidi Boubacar Ibnu Alaaji Mansour xalif général Tijaan yi jaar ci rakkam ji xaritam bi soppeem bi Cheikh Sidi Alhaji Malick ibnu Alhaji Abdoul Aziz jaar ci Sidi Boubacar Njool Fuuta ngeen min ko ak njabootu Cheikh Sidi Alhaji Malick yëpp waaye nag jëm ci jullit yëpp jumaa ji seen maam Cheikh Sidi Alhaji Malick daan jullee daan dajale muqaddam ya ñëpp ci bis bi xam moo doon bisu Rasulullah salaatu wa salaam di gàmmu jumaa jooju nag incha allah nu bëgg jullit yëpp yéen ñëpp ñi ci Sénégal ak ñi ci Afrique ak ñi ci bitim réew ku nekk dugalaat sa loxo ci jumaa am na nag ñuy wax xaalis bi yëpp yem na waaye mbiru liggéey du lépp du yem nu bëgg jullit yi xarit yi sopp yi ñëpp ñu yaakaar sunu borom tabaraka wa taala Sop sang ba tëdd ci médiatul mu nawara yeen ñepp ngeen dugalaat ak seen loxo nag ku joxe won way la batal sa pos ku jëre won pis way jënd leen ko way ndax li ñu bëgg diko ñaan yalla moy sidi bakkar ibnu alaaji mansour xalif général jay ànd ak rakkam yi ak domam yi ak julidi ñun ñepp ñu àndandoo ju juwaa ju way nak wax rek du ko pour ju yegg dedet di ngi di seen loxo ñepp seen loxo ci ju inshallah ni moy ndiga liƴƴugo siɗo iboubacar ibnu alhaji lay awalu zahiru batinu bi kulli alim bi mu ñibbisee jugee Taïf toogaat na yeneen deux ans plus cinquante euh, dix ans yi boo ko boolee deux ans yi muy douze ans plus quarante ans yi muy cinquante deux ans alaaji maa nettali na la lan moo fi xew moom la wax mu ne la aana nekk na salaamun jàmm la alal muxtaar ci ki yàlla tànn en tout cas werante nañu ne rajab la histoire bii amee ñii ne déedéet ci weeru gàmm la waaye wax ji kay acte mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne léppam ci weeru gàmm la ko def weeru gàmm ci la juddu ci la génn àdduna ci la ko yàlla yónni ci la ko yàlla invité ci la ko yàlla defal teraanga moo maanaam lu mu am lu ne ci weeru gàmm yemu ci waaye ci lëndi la juddu ci lëndi la génn àdduna ci lëndi la gaddaay ci lëndi la riñaan ci lëndi la demoon taay ci lëndi la dellu si lépp lépp lépp lépp yonent bi nee na moom mbirum jaxasoowul weeru la def lépp ci lëndi la def lépp nag yow mi wax nag mu ne la waqiila wax nenu waqiila ñoom waa télé bee ko wax waa Tivaouane 7TV ñoo ko wax ak oustaz Malick Ndiaye moo ko wax bokkul bu ñu nee oustaz Malick dañoo indexé bu ñu nee Tivaouane 7TV nag dañoo wax Tivaouane 7TV bu ñëwee ci waaw Babacar ne ko ne ko yow yaa ko wax Babacar ne déedéet du man njóogul ñu dem si njóogu njóogu ne déedéet du man de Paa Souley ñu dem ci Paa Souley mu ne du man oustaz Cheikh la ñu dem ci moom mu ne déedéet du man soxna nangam la ñu dem ci moom mu ne kan la ñuy jàpp ah, finalement duñ jàpp kenn waaye bu ñu nee oustaz Malick Ndiaye moo ko wax mooy xaala wax naa xaala moo ko wax xiila nee nañ kon nag wa xiila ñu ne nag fii rajab bi ci weer rajab la duñ leen weddil seen xam-xam. waaye seen xam-xam boobu duñ ko mën a jël jëfandikoo ko ndax nee nañu lañu wax nee nañu nag téere yi baree ko wax téere yu bëri nag lu ñu wax nag moom dañ ko fay bàyyi rek ñu dem seeti téere bi nga xam ne ñun moo dal suñu xel te ñu gën a wóor moo gën a dal suñu xel mooy daal Rasulullah ci weeru gàmm ci la demoo ci la histoire bi amee moo tax mu ne waqiila nee nañu fii rajabin ci rajab la fii zalika naka loolu ma lay wax amaloo jëf jooju aana daal nekk na daal salaamul jàmm daal alal muxtaar ci moom la ci rañaan laa ci la amee ci la ñàkk amee yëpp lu ci mën a am daal jàmm la rek ana salaam jàmm la daal ci yonent bi alal muxtaar ndax daj na coono kon nag ñu ngi waaj a dugg dund jàmm maam zil silaaji maa ngi ne zil xadami ki nga xam ne moo jiitu mboolem lu yàlla jiital moo si jiitu mbokk yi mi ngi noonu sa bindu tay bi yaa ngi ko jël sa ñaareelu buntu bayit maam Seex Sadaaj maa di ñu ko nettali yàlla na yàlla defal dégg ak topp yàlla nangul ñu si barke yonent yi mbooleem lu fi jaamu ci koor gi yàlla nangu ko ñoo ngi ci weeru jamono yi yërmande yërmande yàlla bi yàlla ñëw si ñun waaxidu daawa naan alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nga juddoo kamakata manga أجدا يا مدينة